boo xamante ni euh, ku mel ni Babacar Touré euh, Kewoulo moo ko njëkk joxe mooy euh, décès wu ki nga xamante ne mooy François Mancabou François Mancabou nag lii particularité bi mooy dafa nekkoon ci régime garde à vue boo xamante ni dépassé woon na largement heure légale yi. kenn xamul ci lan la nekkoon absolument kenn xamul woon ci lu mu nekkoon parce que amul woon mandat de dépôt. Eh, dafa nekkoon ci garde à vue boo xamante ni aussi na nañ jàpp que ni dafa illégal ñu xëy suba na tey jii ñu ni ñu dafa mujj décédé eh, en tout cas famille am njortu ni dafa am ay services yoo xamante ni wala dafa am traitement boo xamante ne buñ ko jotoon def ci eh, fi nga xamante ni mooy poste de police bi ba ci blessure yooyu noonu c'est la mujjee ñàkk ba kanam en tout cas mbir yi daal leerul mais condition yi nga xamante ni condition yu mu ñàkkee ba kanam luñ si mën a wax mooy ay condition yu yu yu xaw a doy waar yoo xamante ni ba tey jii leeragul kenn aussi euh, ñi nga xamante ne waa administration pénitentiaire def nañ ko nanguwuñu wax ci loolu parce que nee nañu François Makobu bokkul si ñi nga xamante ni dañ leen joxoon mandat dépôt donc hmm. loolu waa police ñoo ci war a àddu mais ba tey jii may wax euh, dégguma police réagir si waaw tout à fait mais administration pénitentiaire ñoom yoral nañ ni explication boo xamante nii man li ma jàpp ne moom lañ joxe ci suba leeralu ko. dinañ si ñëw ci deuxième point voilà hmm. euh, di wax effectivement amagul <clears throat> amagul mandat de dépôt donc jusqu'à présent mun nañu ko euh, mettre à l'actif de la police bi nga xamante ni ñoom ñoo ko arrêté euh, nu mu dooti ko placé ko en garde à vue xam nga euh, kii Pamata mm. Sénégal a mm-hmm. un moment donné day am yoo xamante ni xew na ci actualité bi ñu ñu am nu ñu ko commenté mu am ñoo xamante ni nag dañu siy jël xaw a jël un peu de recul parce que li yëpp du leen bett parce que dafa yàgg ay années et des ñuy dénoncer lu mel nii. Mhm. parce que xam nga euh, euh, bu le président Macky Sall dugalaatee dans le circuit le commissaire Arona Sy ku mel ne man posé woon na ay questions parce que kooku nga xamante ni entre 2011 et 2012 il s'est ñëpp xamee nañ ko muy maltraiter les sénégalais fii nii ba ay doom yu euh, beaucoup de sénégalais génn ci àdduna pouvoir bu bees ñëw ñu waroon koo topp ci mal mal euh, nu mu tuddati yooyu mal euh, nu mu tuddati de malfrat yooyu mu mm-hmm. def yëpp kenn topp ko ci au contraire dañu gis ne le président Macky Sall daf ko gën a yokkal grade mm-hmm. ah mais loolu bañ koy dénoncer à l'époque di naan quelqu'un comme ça nga xamante ne ni tey mënoon nañ ko toppee la mort de plusieurs jeunes parce que en ce moment moom moo doon commander la police ki matait les populations mm-hmm. non seulement ay sanctions fekk ko ci mais il a eu ñu toogaat ba ci yàgg on a vu ici mu def actualité on en a parlé pendant quelque temps euh, après on est passé à autre chose muy le com euh, le commissaire Bara Sangaré dem ci benn euh, pharmacie di jënd garab waa ji laaj ko ordonnance le pharmacien jox ko ko on a vu tout ce qui s'est passé ici kooku loolu ba mu ko defee. Mhm. bu nekkoon ne dañ ko sanctionné pour abus de pouvoir. boobu mu mhm. exercer woon foofu. absolument xëy na. beneen fonction bu mu occupé ti balaa moo def doomu aadama dara dina ci réfléchir à deux reprises. dëgg la mais ce qu'on a mooy que dafa jóge parcelle ñu yóbbu ko sûreté urbaine. fi nga xamante ni foofu la doole nga gën a bëree mu nekk une promotion donc bu nekkee ne euh, nit ñooñu ñooy gere sécurité sénégalais yi war di mën ay enquête di def euh, lépp loo xamante ni war na leeral sénégalais yi ci ay affaires yoo xamante ni xew na fi ñu ne si ñooñu kat ay loxo nit jaar nañ fa ba am lu mu leen ci fekk man man mbiram waaj du ma bett. Mhm. du nekk loo xamante ni daf ma bett. Mhm. suba ak gannaaw suba bu nekkee enquête bi nga xamante ni waa amnesty euh, ñu ngi koy wax ak ñeneen ak ñeneen am na te man gaw ma ne dina am. mais bu doon am na dina établir clairement que effectivement waa ji dañ ko euh, nu mu toroxal moo tax mu ñàkk bakkanam ci euh, ci ci ci ci ci hôpital ba. Mm-hmm. Euh, te xam nga li gën a doy waar. Mm-hmm. tout ça était prévisible xam nga dañu fi toog ñu organiser le procureur organiser une conférence de presse ni jàpp nañ fi un rebelle. Mm-hmm. c'était tellement prévisible que automatiquement rek ñun ñëpp dañu ne rebelles yi ñu ne ils disparu de. boo moytuwul on va les retrouver ci manifestation 17 bi nga xamante ni tere nañ leen te effectivement ci manifestation 17 boobu noonu la ñu basé wu pour jàpp ñi nga xamante ni ñëpp nee nañ jàpp nañu leen donc mu nekk loo xamante ni c'est prévisible maintenant xam nga dama ne woon faire le link entre ñi nga xamante ni ñu ngi leen di jiiñ ne dañu bokk ci ab brigade boo xamante ni dafa bëgg a déstabiliser Sénégal te man loolu gëwuma ko mhm. d'ailleurs li ñuy woowee force spéciale man farce spéciale laa ko tuddee mhm. donc ñu ne ñooñu noonu am nañu link ak Pastef mhm. ñu créer le link la ak Pastef mhm. nekkul ne nit day toog ànd ak sagoom euh, nu mu di ko wax bu nekkee ne amul mhm. il faut véritablement nga am foo jaar ak moom teg ko ay méthodes yoo xamante nii di nga ko xëy na pousser à que mu wax ne am naa relation bi ak kii am naa relation ba bële ak kële bu nekkee nag quelqu'un boo xamante nii euh, euh, nu mu turati métit sonalu ko mais mun nga koo pousser à l'extrême ba mu ba ba ba lii ci xew-xew ci mhm. te man li may wax nii <laughs> personnellement sûreté urbaine jaar naa fa on m'a torturé. ah bon man mii personnellement 2006 on m'a arrêté étudiant bugg maa avoué loo ne maa taal ay oto ma tëdd ma bañ ba tëdd ci suuf mais ils m'ont torturé là-bas. donc bu nekkee ne keneen ñëw na ñu bëgg koo loolu loo xamante nii nangu ko mais bul sonn mun nañu jaar ak moom foofu donc waxuma ne loolu moo xew mais c'est une possibilité boo xamante ni lu leer la. te en plus un ancien militaire. koo xamante ni dafa jàng euh, dafa jaar euh, nu mu turee ci armée. am expérience boo xamante ni ñi nga xamante ni bokk nañ ak moom jaar-jaar seede nañ ne guerrier dëgg la mhm. kooku ni nga ko mën def métit ba mu jaar ci ñàkk bakkanam du lu ndaw mhm. Mhm. voilà Moustapha Diop finalement euh, ñu bari ci ay Sénégal dañuy naan kii nous protège entre guillemets de la police euh, man de j'ai peur quand je dis j'ai peur c'est pas parce que dama dama tiit pour sama bopp mais dama tiit pour réew mi Euh, dinaa la ci wax euh, ñaar. Euh, gis nga bi ñu faatee maître Babacar Seye. Mhm. ay années après Ablaye Wade libéré ñoom Clédor Sène. Mhm. boobu journaliste la reporter ñu interviewé loo ma benn waay bu tudd su ma juun Mamadou si mhm. waa ji bi ñu dañ ko jàppale woon léegi mu ngi ci Macky Sall sax na name woon nañ ko président conseil d' administration xaw ma SONES ou quelque chose comme ça. Euh, ma interviewé ko maa ngi ko fekk këram euh, ca Thiaroye mhm. mu ma expliqué ma bi ñu leen jàppee pour avouer pour wax pour ñu avouer comme li bi Birame wax sànq mhm. que ni ñoom am na ñu ñoom ñi def ñoom ñi wax ne ñoo def loolu am nañu diggante ak Ablaye Wade ak Parti démocratique sénégalais. Mhm. mu ne dañ ko torturer torturer torturer ba mënu ko woon heure bu ko heure bu ci xelam demee day jooy day mu mu wan ma euh, li may wax ni yàlla na fekk ma may dégg parce que mhm. këram laa dem maa ngi ànd ak benn photographe bu tudd Cheikh Diallo nekkoon populaire këram laa dem ci Thiaroye interviewé ko mu ne ma euh, euh, dañ ko daan dañ leen daan jàpp ñoom simbi leen ba ñu set mhm. def leen li ñu woowee la position du singe wékk leen wékk di leen dóor pour ñu avouer que ni am nañu un lien ak le parti démocratique sénégalais wala la direction du parti démocratique sénégalais donc pratique yooyu maam Biram mi ngi koy wax sànq euh, dañuy dem ñun à chaque fois. Mm-hmm. ngay gis ay nit di ñëw taxaw devant le juge. Mm-hmm. ñëw wax ne dañ ko torturer ci commissariat. dëgg la euh, euh, nit ñi di dégg. Cheikh Abdou Bara Dolly moo ci mujj bërki dem nettali prison wu rëbës ak la fa ne sénégalais yi toog defe ne c'est banal parfois sax ay reetaan lañ koy def et loolu ku ci nekk ci ñun rëccoo ci. dëgg la ku ci amul kenn ci ñun ku ci rëcc. mais bien sûr bi ñu jàppee Karim Wade. Mm-hmm. dafa am benn avocat bu ma bu ma respecté lool. moo woo ko téléphone ne ko man jeune ne comprends parce que boobu ñu ngi ci euphorie wu euh, reddition des comptes ak affaire yooyu quoi ñëpp bëggoon nañ Karim Wade goqi su fekkee ne dafa am lu mu logoon. ma ne ko mais yow euh, Karim wadd mi ak li ñu ko waxal yëpp ne moo ko def euh, lan moo tax ngay ngay dem di ko di di constituer pour défendre ko parce que moom moo dem constituer boppam. mu ne ma Moustapha ma ne ko ah, mu ne ma li ma gis ci mbirum Karim Wade xam nga lu muy traduir ma ne ko lan mu ne ma mooy insécurité judiciaire ma ne ko luy insécurité judiciaire mooy mu ne ma mooy kenn ku nekk ci ñun mën nga xëy suba ndekki sa kër defoo kenn dara amoo kenn benn problème dem sa place liggéeyukaay yendu ji kaso wala nga fanaani kaso te mu ne ma bu réew àggee foofu ñun ñëpp nu sommes en insécurité te tey jii lii xew nii waa joo xam ne euh, dañu dinañ ñëw sànq ci ci bu ci kanamee xam naa ci Pape Mamour Seck bi ñu doon waxtaanee euh, démb euh, waa ji nga xam ne mooy mankabu boobu. Mm-hmm. dañ ko jàpp. Mm-hmm. ne moo def nangam wala def ko. Mm-hmm. réew yu réew yëpp. peut-être Amérique bi muy xeex ak ñoom benn la nag yooyu mais réew yu normal yëpp dañ lay interroger ak ay conditions yu lay interroger nga wax li nga xam ñu jaar ci leneen. absolument. mais un ancien militaire bu ñu nee dafa faatu et man li ma liir ci suba. Mhm. xaw ma ba xam c'est original ou pas j'ai lu l'acte de décès ñu bind ci mort accidentelle. loolu waaw moom ñu bind ci. moom laa liir. absolument alors moor accidentelle. il faudrait que <laughs> qu'on aille jusqu'au bout. Mm, mm, mm. expliquer définir ko définir ko définir ko parce que waa ji dawul dawul ab oto daanu. déedéet euh, dawalul moto daanu. déedéet mais yéeg ci escalier daanu sax accident la. yéeg ci escalier sax daanu accident donc il faudrait qu'on dise qu'on ñu wax sénégalais yi mort accidentel boobu lan la lan la tekki. Mhm. Pape. Mhm. beneen bi mooy euh, wax naa ko fii dinaa ko waxati senegal ni ñuy jàppee nit ni ñu yóbboo nit prison dafa yomb lool et ndaw sii ñu jàpp fii ci euh, Sam Notaire. Sam Notaire mu tudd Ami Dia ñu koy woowee Nida. Mhm. dama lire dans la presse d'aujourd'hui euh, la presse qui nous pose problème vraiment <laughs> ñu bind les aveux les graves aveux de Amidia ma ne ah ça ça m'intéresse je vais lire xam nga aveux yi am na ñu wax les graves aveux mooy la mhm. <laughs> mooy ndaw si nangu na ne moom am na ay responsable Pastef yu nekk à l'étranger yoo xam ne daanañ koy yónnee xaalis mu koy yónnee ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la xam ñu bokk seen parti te ñu wax ne ñoom jàpp nañ leen Pape parti politique yii ci Sénégal amul ci benn boo xam ne dina am ay activité te du am ñu jël xaalis bokk ci parti bi yónnee ko kenn ne ko joxal diw mu jënd t-shirt joxal diw mu luye oto joxal diw mu nàngam joxal diw mu nangam jox ci parti yëpp la am. te ci ñu yorul xaalisu nguur gi. ji bien sûr ñu yorul ko xaalisu nguur gi parce que booba gën a yomb. Mhm. te te te loolu souvent parti yi ñu koy defee euh, ñi ñu koy ñi ñu koy sas souvent mooy jigéen ñi. parce que jub gin yaakaar ci ci ci joxe xaaj ña ko war a jot ci ñoom lay lay dal moo laa doon waxtaane sax ak Pierre Edouard Faye ma ne ko est-ce que xam nga ne bu fekkee ne loolu rek mooy aveu grave mhm. ñun ñëpp mën nañ ñoo ñëw jàpp mais bien sûr xam nga lu tax mhm. mais tey jii nii ñun fii ñu toog nii mhm. mën nañ ne dañuy constituer une équipe de reportage ñu ne dañuy dem Touba pour defi reportage pour Walfadjri ñu ne danañ fa fanaan ñetti fan ñu ne léegi suñu ay frais nangam lay doon. Mhm. Pape Mokhtar war naa am ndàngam war naa wax ndàngam. mais naturellement la direction qu'est-ce qu'il fait danaan on envoie l'argent à Moustapha. wala Awa Diop Ndiaye mu jox ko nekk li nga war a am. Mhm. ñu dem defi suñu liggéey. mais mais où sont les aveux graves dans tout ça. man dama togg mu jàgg ma ne man ñaar moment soit ñu nekkatuñu ay journalistes. wala dégguñu tubaab. ñeneen a ko nekk wala dégguñu tubaab wala boog. ñu ñu choisir bàyyi suñu suñu métier bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom léegi di ko def parce que man li ma gis muy xew ci réew mi. gars loolu lañ bëgg de Moussa mais ça devient très grave sa <laughs> devient très grave. Mm-hmm. xoolal nit ñàkk bakkanam dans les conditions yi mu ko yi mu ko ñàkkee. Mm-hmm. la presse fait comme si c'était un une affaire banale. absolument dañ ko banaliser. oui effectivement. ne dafa daw prison ak condition yi mu dawee prison. Mhm. ki ñu wax ne ci suba moo doon expliqué Bokande moomu. Mhm. li mu wax convaincrul sax moom boppam. dëgg la. on laisse passer. Mhm. foofu la Sénégal toll. Mhm. aw Diop euh, yaa ngi koy wax léegi euh, presse bi am na ci nga dem part de responsabilité mais nit koo xamante ni quand même euh, bañ koy jàpp ñu ngi ko fekk si këram fekk ñu ko hôpital bañ ko jàppee si lañ ko mujj transféré ci li nga xamante ni moom mooy ci pavillon spécial boobu parce que amoon na ay malaise ak yooyu mën nañu njoxtu que ni dafa torturé ci biir police boobu encore que euh, di fàttaliku que jeune Colobane yi nga xamante ne dañ leen jàppoon ba tëjool leen fi euh, vingt ans de de récrimine euh, xam lu ñu tudd. réclusion criminelle réclusion criminelle. Mm. dañ leen mujj sax lu mu tudd bàyyi parce que dañu ni amuñu ay preuve bañ demee seconde instance xale yooyu dañ leen doon torturé jëloon ay pousse doon ko def seen sexe est-ce que tey jii pratique yooyu nga xamante ne koy dégg ci police dina honorer la police nationale. ça n'honore pas la police pas Matar yooyu dafa yàgg mais li gën a récent mooy la dernière sortie de Guy Marius Sagna à Ziguinchor bi mu ne dañu jël ay agrafe di agrafe awra ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp loolu lan moo ko gën a metti agrafe nga jël ko di ko agrafe ay nit ci seen awra ay góor loolu ban façon torture la euh, Moustapha dafa ne. ñoom ñooñu sax nañu sànni woon ñenn ñi ci côté Dak diggante Dakar ak Thiès ñenn ñi ci VDN bi ay jigéen ak ñooñu. ñenn ñi jëm ñenn ñi jëm mais bu la 17 bii passé. Mhm. ñi ñi mujjee jàpp sa Sigicoor. lu ñu leen doon def aggrave. jël aggrave di ko aggrave ay sexu jàmbur. gi sexu jàmbur Guy Marius Sagna dernière loolu la toog ci face à la presse di ko nettali. te ba tey jii amul benn plainte bu ko toog. ba tey jii amul benn plainte ba tey ji déggoo benn. association de défense des droits de l'homme boo xam ne jug na ci yiy yàbbi ci. Moustapha mi ngi wax ne j'ai mais man j'ai peur et j'ai très mal. Mhm. parce que tey wala si lu ma yëgul. xanaa Sénégal dañu voté loi bu yees boo xamante ne dafa am nit koo xamante ne dañ ko arrogé wul le droit de vie et de mort sur les gens te yëguma ko parce que tey c'est ce qu'on assiste mooy koo xamante ne wala ñoo xamante ne dañ leen ne vous avez le droit de vie et de mort sur des gens parce que léegi dee dañ ko banaliser absolument torturer nit ñu banaliser ko mu mel ni dañu nekk ci loo xamante ne kenn xamatul au donné de la tête li Moustapha wax ñun ñëpp tous autant que nous sommes fi mu nekk ni suñu ay bakkan mi ngi ci xottu gerte bu fekkee ne tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy lee garants ñoom ñooy ëlbatiku ñu leen di joxañ baaraamu tuuma ci méttital ak ci ay faat bakken y a de quoi s'alarmer te tey li ci gën a métti Moustapha mi ngi koy wax torture daan na am naam mhm. mais tey ji c'est avec beaucoup beaucoup beaucoup de légèreté lañuy ñuy nit faat ko mu jaaree par pertes et profits mhm, mhm, mhm. li ci gën a bon dafa am sart yoo xamante ne dañ ko teg ci biir réew mi sart yooyu lan lay waxee nit ki suñ ko jàppee ca njëlbeen ba war na am avocat bu ko assister absolument loolu su amee torture boobu du am mais tey da ngay dem au niveau des commissariats on foule sa du pied dëgg la avocat bi du am sañ-sañu ñëw taxaw day mel ni à la day kémandé bi ñu mujjee jàpp ñoom Amadou Ba et autres tas leen ci commissariat yi seen avocat yi dañuy wër di leen seet commissariat bu ñu dem ñu ne leen nekk ñu fa te fekk ñu ngi ci biir commissariat boobu boobu arrestation c'est nul et non avenu parce que li tënk charte gi pour ñoom ñu am assistance su seen euh, avocat tey jëfewuñ ko donc tey li nga xamante ne mooy protéger ak ak yelleefu doomu aadama yëpp dañ ko foulé du pied mhm. toog ba pare ñu continuer di seetaan loolu ba pare tey jii association de défense des droits de yi anañu bu fekkee ne ak fu doomu aadama rek moo leen tax a jug wala dañu bokk ci association yi nga xamante ne machine politique bi daf leen broyé. Amnesty moom mi ngi demandé à ce ñu ubbi enquête leeral mbir yi. gis nga demande rek dafa euh, doyatul léegi. Mhm. demande dafa doyatul. ñoom gis nañu autant ni ñu doon jëlee xeex bi ci yenn ci ay dossiers. Mhm. qu'est-ce qui a entre-temps si ce n'est que ça a empiré. Mhm. lu tax duñ ci wax. tey jii bu fekkee ne nañ ma leeral charte bu bees dañ ko voté à l'Assemblée nationale pour jox ay nit droit de vie et de mort sur le citoyen bu fekkee ne loolu dafa am bu boobaa ñu xam à quel saint nous ak naka la ñuy taxawee ci boobu réew wala tey jii euh, on veut museler tout le monde personne n'a le droit de parler personne n'a le droit de mener des activités personne naa le droit de réclamer ses droits. Mmh. tey c'est en train de vivre dans ce pays et mm-hmm. vraiment malheureux te mm-hmm. waruñu woon tollu foo xamante ne lii lañuy ñuy dund mm-hmm. parce que tey jii ki nekk ci boppu réew mi ñuy selfaañi ay aqam ak yelleef la ko nit ñi porter woon combat di ko xeexal mu dund ko jaar ci traversée du désert loolu yëpp mu xam ko kon tey jii moom warul seetaan ay askanam di subir li ni mel warul seetaan ñuy salfaañe li nga xamante ne moo di àq ak yelleefu doomu aadama warul seetaan tey jii droit bi gën a élémentaire ci doomu aadama ñu koy bafoué te ñi koy bafoué mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo chargé wu euh, euh, ordre ci biir réew mi ak respecter li nga xamante ne moo di ak ak yelleefu doomu adama euh, tey ji y a eu combien de morts au niveau des commissaria et autres yoo xamante ne non élucidés yàggul sax lan lañ lay wax mort naturel ñenn ñi dañ la naan pendaison ci njaam ak njàmpe absolument fii ci commissariat central oui pendaison ci njàmpe ñeneen ñi ñu ne la non dañoo kii dee nañu. lan moo mm-hmm. leen rey ñu naan mort naturelle. Mm-hmm. ki fi jóge woon euh, France ñëwoon vacances. ci noonu. ñu ne ñu ne dee na màggal màggal. màggal waaw ñu ne dee na ñu ne dee na ndax lan ñu naan ñu lii moo ko dal lii moo ko dal lii moo ko dal. Mm-hmm. yooyu yëpp non élucidé xam nga lu bëri nag su amul lu ko faj. nii rek lay continuer bu fekkoon ne njombe yooyu yëpp am na. et il y a yu ñu jëloon ci loolu. yaakaar naa ne da ngay fekk luy Mame Birame doon wax sànq muy euh, wane impunité bi moo tax ba nit ñi di gën a def lu leen neex. mais impunité. impunité Pape Makhtar tey su ma la tooñee def la lu la métti nga dem porter ma plainte dara topp ma ci ma romb la ci mbedd mi di la nargué. Ah. loolu da lay xunduloo da lay merloo loolu moo fiy indi la loi du talion ci biir réew mi aw man yaakaar yaakaar naa ne euh, euh, li Awa Diop Ndiaye wax noonu dafa am solo lool te danañ ci jaar euh, pour situer au moins ñetti responsabilité bi ci jiitu naturellement te moo ci ëpp mooy la responsabilité politique mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy diriger ñi nga xam ne ñoom ñoo voté ay loi ci assemblée Euh, pour wax ne lii ak lii dañuy tere ñu teg ko doomu Sénégal xam nga torture amul benn loi bu ñu voté ci Sénégal bu permettre alkaati mu torturer nit donc su fekkee ne nit mi ngi mi ngi koy def te dara fekk ko ci c'est parce que l'autorité politique kaca kaw a kaw a kaw moom la neex absolument pour ne pas dire que moo ko encouragé mhm. muy benn beneen bi mooy la responsabilité euh, euh, de ki nga xam ne moom moo koy def te loolu man dama naan muy policier du gendarme di beneen fonctionnaire état wu Sénégal ak fu mu mënti nekk dans l' administration du Sénégal man je crois que il faut que ñu àgg ci benn affaire mooy bi euh, Ablaye Wade jëlee nguur gi Abdou Diouf dem. Mhm. Ablaye Wade dafa def reddition des comptes. Mhm. ñan lañ doon topp mooy les politiques yi nga xam ne ñoom ñoo ne newoon ci nguuru Diouf bi Ablaye bi Diouf demee. Euh, bi Ablaye Wade demee Macky Sall ñëw mu teg CREI yi ñan la doon topp mooy ñi nga xam ne ñoo doon les responsabilités politiques. Mhm. Euh, te kenn ki sax euh, mi ngi ci wetam gis naa ko ma ànd ak exam démb di. campagne ñu si bëri kay. boo ci génnee Karim Wade ñëpp a ngi ci a ngi ci wetam. ñooñ lañ préféré poursuivre mais Pape man dama gëm ne il va falloir dans ce pays. Mhm. ñu àgg ci benn moment boo xam ne régime bu fi mënti toog day répertorier. tous les fonctionnaires de l'État du Sénégal mhm. yi nga xamoon ne à des moments précis euh, de de leur carrière amoon nañu responsabilité ci nangam ak nangam euh, Mancabou mii fa mu faatoo mhm. soit commissariat central la nekkoon mhm. soit feneen la nekkoon man man d'accord naa fii ba dix ans vingt ans bu régime bi changé ñu ne commissaire ba jiite woon moment boobu euh, fañ ko defee on engage des poursuites contre lui te loolu xam nga lu ko mënti ci maye c'est pas les politiques hein mais c'est la responsabilité de chaque sénégalais gis nga bi ñoom Guy Marius Sagna taxawalee seen kuréel googu euh, contre les tortures xaw ma yu demee noonu. Hmm. di di woote ay conférence de presse di woote ay manifester sénégalais yi toog seen kër mel na ñoom Guy Marius li ñuy wax ñoom rek la intéressé. loolu nag mooy law di law di law ba kër gu ne mu dugg fa mhm. mais su fekkoon nee dafa dal ci Mankabu mhm. wala mu dal ci euh, Cheikh Niass boobu euh, faatu woon ca ba mhm. wala mu dal ci keneen ak keneen sénégalais bu nekk chaque sénégalais képp ku am doom képp ku am jëkkër képp ku am jabar képp ku am papa nga sentir ne li dal euh, Mankabu bi daf ma dal directement parce que mënoon na tudd neneen nekk sama papa wala mu nekk keneen nga ne lii ça me concerne nga bañ a yem ci metti ko mais nga jóg taxaw wane ne lii warul am ci réew mi léegi mu dakk mais malheureusement comme l'a dit Mame Birame sax mhm. euh, ñun Sénégal li politique réussir fii en tout cas régime bii fi nekk mooy réussir à banaliser la mort et les scandales mhm. lu mu garaaw garaaw duñ du ñu tee añ ceebu jën ba suur naan ñetti euh, kaasu ataaya dem def dem doxi suñuy soxla mhm. on pense que c'est normal alors que man je juge que je dis même pas que c'est anormal mais c'est gravissime gravissime dans une démocratie bu mel ne ba nga xamee ñii ko jiite ñii ñi xeex Sénégal ba démocrate Sénégal ak si fii mhm. ñoom xeexuñu ca lu mën a euh, lu mat kaasu ataaya mhm. je suis désolé de le dire mhm. awa mi ngi wax sànq naan traversée du désert euh, président Macky Sall traversé wul benn désert benn li gën a neex ci nguur la am mooy Ablaye Wade ñëw ci nguur jox ko toutes les responsabilités mu bàyyi Ablaye Wade 2008 mu nekk président de la République du Sénégal. il mhm. y a yoo xam ne ils ont passé leur vie. laa wax leur vie. 26 ans Ablaye Wade. 26 ans Ablaye Wade Ablaye Wade sax yàlla dimbali na ko dem na nguur mais am na ñoo xam ne ils ont passé leur vie laa la wax. Mhm. à se battre pour la démocratie. à se battre pour les libertés. à se battre pour que man ak maam Biram ak Awa Diop Ndiaye mën a toog fii di wax suñu soxla te ñoom mësuñu ci jariñu. Masbul Diop. ak ñeneen ak ñeneen. ñoo xam ne. ils ont donné de leur mhm. pour que ñun ñu mën a toog fii di wax li ñuy wax. musuñ ci jariñu mhm. ñoo xam ne ils ont donné de leur pour que parti bu tudd PASTEF mën a am bu tudd euh, réew mi mën a am bu tudd APR mën a am bu tudd euh, je ne sais pas beneen ak beneen mën a am. ñëpp di compétir ku nekk di wuti. te ñoo te ñooñu mësuñu am poste ministre mësuñu am poste poste poste nu ñu koy waxee sax député. Mhm. ñooñu ay xale yu ndaw juddu bërki démb mësuñoo. fekke benn combat démocratique ci Sénégal mu amul dara dara lu ñu mën a taxaw ne lii maa ko xeex pour démocratie Sénégal bëgg a toog suñu bopp yi ne nooñu moom du ma duñ ko nangu. Mhm. mënta mhm. nekk. Mhm. je désolé. Diop Alioune nee na di am membre